Pape Diop di candidat coalition convergence bokk gis-gis amal ab caravane bi nga xam ni duppee na ko caravane de la paix loolu sax may ko mu dem fële nga xam ni moom moo jëm ca Cambérène ak Yoff nemmeeku ñi nga xam ni ñoom ñoo di guide religieux yi nga xam ni ñoo fa nekk ci naka noonee ba mu yeggee ca bërëb ba ki nga xam ni moom moo di porte-parole bu famille Layène Mouhamadou Lamine lay dalal ko ñaanal ko itam ci li nga xam ni moom moo jëm ci élection yi nga moom la ñu dëgmal. jóg man ni damay ñëw fii Yoff ak Cambérène yéen kilifa yi. ma ñaan leen ngeen ñaan. wax ak askan bi pour ñu dalal campagne ñu def ko ci jàmm. ku war a gañe gañe parce que yàlla mooy tànn ki gañe fii nag laa njëkkee ci yow yow nag suñu diggante dafa nekk lu particulier waaw wax dëgg yàlla te nga am yéene yu mag ci man mën naa wax ni njabootu Seydina Limaamu yëpp noonu la ñu mel ci man bañ a wax lenn lu jëm ci politique bi ñaan jàmm dikkaat ci campagne bi ñëpp def ko ci jàmm ndax ñun ñëpp ay mbokk la bu ko defee loolu daal ci loolu moo tax ma jóg tey euh, ci caravane de la paix bi di sàkku yéen kilifa diin yi ngeen ñaan ci jàmm dellu si ci ñu def élection yi ñu def campagne bi ci jàmm woote ci jàmm ki yàlla tànn jiite eh, te mu nekk njariñu askan bi parce que bu fekkee ne askan bi rek moo ñu yëkkati jarul tojante bopp bu ñu la nga nga nga liggéeyal leen bu ñu la falul nga dellu ci li nga nekkoon. ba mu fa jugee itam am na ñeneen guide religieux ci communauté laayeen bi dem na seeti leen daal di waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni moo jëm ci mbébétam ci jogante mairie bu Dakar yi nga xam ni ñu ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier. ki nga xam ni moom moo di candidat convergence bokk gis-gis di Pape Diop ñaawlu na violence yi nga xam ni moom la ñu nemmeeku ci élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal Pape Diop jàpp na ni amul benn candidat bi nga xam ni mën nañ ko fal ci wàllum violence. campagne bi ba mu commencé ba tey dafa dafa am mel ni daal euh, li ñuy wax ndakaar dañ fi suy poobar <laughs> ndaxte mag ñi dañ naan wax bu poobar tuuroo foofu dafay am dafay am ay ay bi bari na trop euh, ay na ci campagne électorale wax dëgg yàlla jaru ko parce que kii falu yàlla rek moo ko xam ëllëg donc euh, li ñu war a def mooy dem ci nit ñi wax ak ñoom li nga xam ni bëgg nañ ko pour nit ñi ñu wax leen kenn ku ci nekk ci jàmm ak sutura bu ko defee euh, électeurs yi ñoom ñëpp ñoom itam wax dëgg yàlla ay mag jëmm lañu xam li ñu xam lépp ba pare toog seen kër ñoom kay dañu préféré bañ a def politique rek mais gënuñu leen a xam dara ci dëkk bi gënuñu leen a xam politique ñooñu kenn mënu leen a orienté mais dafa am benn phénomène boo xam ni bu ñuy xool analyser situation yu mel nii dañu xool appareil politique alors que lii élection local la bokkul ak élection nationale. addu ci li nga xam ni moo jëm ci élection yi ba tey ndax Pape Diop am na jàppandalu Boubacar Camara ak ak 17 candidats yoo xam ne ci biir ndakaaru daanu ko jàppale ci li nga xam ni moom moo jëm ci élection yooyu ca ville bu Dakar. waaw am na 17 yoo xam ni ay candidats yoo xam ne wax dëgg yàlla ay candidats yu sérieux la. bëggoon a wax ni. dinaa ci cité kenn. Euh, Boubacar Camara. Euh, li tax ma cité ko. dafa nekk ci quartier boo xam ni. Grand Yoff. c'est un quartier à requalifier. y a beaucoup de chantiers dans cette commune là. kooku ci sama soutien yi la bokk ak ñeneen ñeneen ñoo xam ni. am naa yaakaar ni. ñoom ñooy gañe fi ñu nekk kon nag affaire bi kar naa ni mbetteel mën na am mbetteel te mbetteel dina am gis ngeen léegi rek yéen yéen ñoo àndoon léegi euh, Cambérène la la fille la la dame la ki est venue me voir avec son staff qui a décidé de me soutenir et qui avait demandé que je passe à, à leur permanence euh, je crois que ñoom ñëpp nag soutenir uñ ma nii dañu xool ne nañ sama programme ñenn ñi dañu ma dégg li ma wax à travers les médias ñu décider ànd ak man parce que ñooñu dañu ils sont soucieux de l'intérêt de la ville de Dakar ndaxte dem ànd ak nit koo xam ni aussi wër na la ni kii bu ko jëloon tam du fa réaliser dara waaye ni ki tey ki nga xam ni moom moo di leader bu convergence bokk gis-gis dana amal fële nga xam ni moom moo di ca Hann Bel-Air ab visite de proximité jeexale kook meeting bu mag bi nga xam ni dana ko amal fële nga xam ni moom moo di ca diwaanu Wakaam